ma nga fa te xam ne jàmm leen fay bàyyi di nuyu tamit bu baax Chérif Ibrahima Aydara Tidiane di wëlëre Abdourahmane Bari Thierno di nuyu tamit cardinal Théodore Adrien na ko yàlla defal jàmm may ko xéewal yàggal ko fii ak abbé ñoom Roger ziar nañ leen Serigne Mbaye Sy Mansour suñu xarit la yal na ko yàlla defal jàmm mbokk yi dañuy dem nag seeti ki nga xam ne mooy maître Madické Niang suñu ko waxee nag mooy démb alternance am na ans ñoom dañ ko doon fete at bu nekk rek ñu daal di koy bàyyi lan moo ko waral Madické Niang jàkkaarloog ñi nga xam ne nag mooy Sénégal expliqué leen coow li nga xam ne moo tax ñoom ñu bàyyi fête bi ci yan condition la leen fekk ñu seeti Madické eh, eh, eh, eh père Madické eh père ma on dit <laughs> ajaa xuj maa ngi dem féete ñoo du ma yàgg ndax heure bii daawaati géej ñu ngi ko doon féete te alternance góor gi nekku fi soo demul rek ñu yaakaar leneen la maa ngi dem te ñëw mbokk Sénégal maa ngi dellu si di leen nuyu di am mbégte ak contentement bu mag di xamal ne président Ablaye Wade moo ma yebal di xamal waa Sénégal nag gis nga àdduna nii la tëradee waa fukki at ak ñeent mu ne mel ne barke Demba Ndiaye le président de la république le gardien de la constitution maître Ablaye Wade toogoon ci bopp réew mi un 19 mars 2000 ba tey 19 mars 2014 xale juddu na ci ba nekk ci njagamaar gis nga mbiru yàlla xale judd na ci ba fekke pont xale judd ci ba fekke ci souterrain ak ak li nga xam ne moo ëpp Sénégal du tunnel bi nga xam ne dëkk yi ñuy wër genn wàll gi amuñu ko ci ci ci ci toogaayu président Abdoulaye Wade mi nga xam ne dafa na fi teraanga àdduna bu leer nag ñu ñëpp teg seen bët waaw daal ko fete nag ak ñii nga xam ne ñoo fi toog tey bokkoon nañ ci ni ko doon feete waaye yàlla dogal ne ren ku la aaya génn aaya la tukki aaya la ci ay jotaay yoo xam ne Macky Sëñ Saali boo fa toogee ñu yaakaar na yaa ngi ci donkaasi gi Macky Sall nag war na ut seetkat bu koy seetal boo sànnee petaaw yi dana ko xamal ne ko ñii nga xam ne ñooy say wujju nekkuñu ci donkaasi gi ñun kay ñu ngi ci donkaa ndax lii kenn xamu ko boo demul Tuubaa ndar sa boo fa demee boo génnee jam ñaajo ñu taxaw la na la kaay loolu dafa doy waar ah président Ablaye Wade yàgg na fii taxaw di ko feete ñëpp daa dee taxaw waaye gis nañu tey ñi nga xam ne ñoo àndal la ñoom démb daa dee beruwaat taxawal beneen coalition ni dañuy jéem a jàppale président nag Macky te ñoo ñoo taxawal coalition jàppale président Ablaye wadd lii nag yàlla moo ko def heure bi daana fekk mbumbaay bi président yeewu suba teel na leen tey la anniversaire alternance daa day taxaw temm ne kenn ku nekk nanga ko fete sa gox waaw ñuy fete ko ci jàmm waaye tey gis nga dëkk bi day na waar bi ma xëyee ba tey damay wax dëgg rek ci yàlla tax junne ñaar téeméer laa xëyee ajaa xud na ma tey lu ñuy togg ma ne ko ceebu géej yees ndax dëkk boo xam ne mun too dem mun too dikk amatoo sañ-sañ nooy feetoo anniversaire day fekk nga tal ko te mën ko waaye ñun ñëpp nag wax dëgg yàlla Macky dañoo wàññi ku dentoon fukk ñam nga ko ak say mbokk parce sañ sëñ jeex na tàkk ndax gàmmu nga dem màggal nga dem lu xew nga dem dëj la yëgal nga dem maar de taani da ngay joxe waaw ku yàgg di joxe nag te kenn du la jox yàggee nga dee waaye lii tey Macky Sall waroon na ci dugal loo xam ñu feete ko ndax bokk na ci ñi nga xam ne nguur nañ ci 2004 2019 ba 2014 gën ngaa gàtt waaye nag yàlla waxul kenn dara xanaa di ko souhaité président Ablaye Wade saa sa anniversaire kon joyeux saa noonu mooy woote président yàlla na la yàlla defal jàmm ci yow laa nekkoon nii yaa may seetaan TFM président joyeux anniversaire yàlla defal la fan bu gudd ak wér gu yaram yokk say at ba ëllëg constitution bi changé nga nekkaat candidat ndax mun nga ko président un candidat de quatre-vingt-dix ans loolu kenn jomu ko yàlla na ko yàlla defal dans un pays jeune yàlla mën na ko yaa nekk ci xol yi ba tey yaa ñuy daaneel parce que suñ saaliw yaa may dëgg yàlla yàlla yàlla gis kon gis nga leen gis nga ñoom mbay seet démb ñu def coalition waaye ay mag nag bu ñu jàppalee gune kon ma ji seen xale nga ci gune